wala njullu ko pour wax ko xali wala kenn wala kenn ci ni ma waxee dégg ngeen ni mu waxee dégg ngeen maa ngi nekk sama bés gi dégg bésam xaw ma nan la xamul nan la xaw ma kañ la xamul kañ la xaw ma fan la xamul fan la yéen it noonu yéen kenn ku ci yéen noonu ñi fi daje ñëpp ay néew la mboolem ci daje ñëpp ñëpp ay néew ay néew la dañu leen sangagul néew ñu sangagu rek la suule gu ñu rek yóbbu ñu di sëggee rek Waaye ñëpp néew.
ñëpp ay néew la ku mën a dindi loolu mais nag kenn mënu dindi Ku ko mën dindi.
kenn kenn mënu ko dindi dindi leen ko kenn mënu ko
kon nag nañ bàyyi cëpp cëpp ji te dal di nekk yàlla ba mu ah ne kon nag nan bàyyi cëpp cëpp ji te nu yarul daal nekk yàlla bépp mu dikk Seydi El Hadji Malick nee na ca Tiwaawan nee na Seydi Haaji Malick radiyallahu taala anhu nee na ca Tiwaawan dafa am benn waay boo xam ne dafa nekkoon ci kër gi dafa am benn waay bu nekkoon ci kër gi
yàlla nattu ko yàlla nattu ko mu dal kenn ci njabootam mu dal kenn ci njabootam wax ci kawam lu bari wax ci kawam lu bari mu ñëw jàmbat ko mu ñëw jàmbat ko moom Seydi El Hadji Malick ne ko def leen ne man Maodo ni ko def leen ni man bés bu nekk téeméeri gili ni safara bés sama bu gannaaw ne téeméeri gilli sax lañu suuf sama gannaaw te rus naa ñurtlu te rus naa ñuutlu wala ma yëkkati wala ma onk kenn di ko dégg kenn di ko dégg
waaye nag wolof yi li ñu bëgg du mën a am waaye nag mën tekkee ni wala li ñu bëgg du ma naan ker gi ci la bëgg a yenn kër gii ci laa bëgg a yenn ci banqaas bu dëll nga te fel bàqaas bu dëll nga fekk dag gor ko soo du ma nay doo yenn waaye sa kenn du ma ngay yendu de waaye nag siw naaj ngay yenn da yendu ci kenn nañu teral doomu nit ñu baax ñi nee nañu teral doomu ñu baax ñi jox leen seen jox leen cër seen ceeb ñi yàlla teral ñu yàlla teral ndegam ci sëriñ si la ndegam ci sëriñ si la ndegam ci àdduna la ndegam ci jëm àdduna la jëm ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon nañu leen ñu teral leen teral yàlla teral yàlla teral
yàlla teral ñu su ñu ko defee kon ñun yàlla teral nu loolu moo di li am njëriñ loolu mooy li am njëriñ suñ jógee ci loolu suñ jógee ci loolu ñu taxaw ci suñuy jaamu yàlla bu baax nu taxaw tem ci suñu jaamu yàlla bu baax suñuy julli nu taxaw suñu julli juróom suñu koor taxaw suñu koor suñu cangaayal taxaw farat suñu cangaayal farata suñu njàpp taxaw suñu njàpp suñu tiim suñu tiim suñuy aj suñuy aj màkk ak lan la lan mooy mooy am asaka door a war war lan mooy am ci alal asaka dooral ak la asaka alal yi nga xam ne asaka waru ci ak alal yi nga xam ne ni soo ko amee moom asaka waru nees di tëkkëb sëy nu xam lu nañu ci kab sëy ak nees di fase ak nee fase jigéen ak fase moo xam ne ak fase moo xam ne mii su xasee su am xasee am dootu mën a am dootu mën a am lu dul gannaaw lu sëy gannaaw sëy ak fase moo ak xam ne fase moo xam ne su amee su amee ndaw si mën na ndaw dellu si mën a dellu si balaa idda jee balaa jeex idda jee jeex ak fase moo ak xam fase ne moo xam ne mën na am mën naa am waaye su daje idda ji waaye jeex su daje idda ji jeex takkaat beneen rek sëy bu bees rek kay am mu door dellu mu door dee si kër ak fase moo xam ak ne fase moo xam ne su xasee su jub xasee jub denc gi denc gi su seyoon téeméeri baa de daw su seyoon téeméer baa de sawjin Dootu jàpp.
araam na doo ko mën a denc te yooyu yëpp julit war na ko am ah ah kay xel mi nga tëral mais mën na ne ndax xel mi nga am tëral ki xam-xam ak xa- xam-xam ak xel rek a wante mu nekk ci ñu yor xam-xam ak xel ak évante ba mu mel nii ay weñ ak i buum ay wéyeeki buum ak safara ak safara ngay wax ca Paris ma di la ngay déglu wax ci ci sa daara pare mu di la déglu fii ci daara ma dem ca huit de ba di waxante ku nekk ci Allemagne mu dem ca nit newa diwaan tekku ne ca Allemagne yàlla wàccul def ko yàlla wàccul def ko yàlla dafa bind ay nit yàlla dafa bind ay nit roof ci ñoom la roof ci ñoom lépp ñu di topp loolu ñuy topp di loolu ko gës di ko gës wala ko itti wala ko it ba rajo ne maa ngi ba rajo ni maa ngi téléphone ne maa ngi téléphone ni maa ngi oto di daw oto di daw saxaar di saxaar di daw daw avion di daw avion di daw waaye du yàcc yàcc waaye ak ko indi kenn toogul rek yooyu xëy sotti
soo defee ni ngay def sa tool mais kenn ku ne soo ni ngay def sa tool soo ko defee gor ko ba mu tëdd mais waxtu jotee da ngay gor tool bi ba mu tëdd ngay sébb da ngay sébb li nga gor di muñe di ku fukki fan ak fukki fan ak juróom wala ñetti ay bés dimbu ñu di ko fukki fan mbaa ñetti ay bés bala ca war a tàkk tàkk Bala- la ca mënula tàkk nga ge- ber ber ko di ko la ca togg war di a añ.
tàkk nga tàkk mu tàkk la ca war a tàkk nga ber ba lépp set ba lépp set fab jiw wi ci kër gi dem faru nga fab jiw wi ci kër gi dem ca tool ya faru ji bët séb bi nga bay baxaw bët set bi nga bay baxaw wolli wol jëmbat jëmbat bayaat bayaat
ba dugub ji pol-pol ba dugub ji fal fal ba génne ay gub ba génne ay gub nekk tand yi la neex nekk tand yi la neex xam nga ne soo deful woon loolu doo am tand yu rafet ba ngay nii jëm.
nga def ci tool bi soo ko deful woon xam nga ni doo am tand yu rafet yu la neex doo wax ne xetal leen ma sàq mi woo ñu la boj doo ko deful woon doo wax mukk na nga ma xëy sàq wi woo ñu la bojal doo wax ne nañ ma defaral cere lay joo xam ne Doo- dama cee def meew doo wax yi nañu ma defaral ci dugub ci cere yi lay ju ma def meew xel moomu nga liggéey xel tool bi moomu ba am nga loolu liggéeyee sa bopp ba am ci dund bi soo ko sakkoo woon soo xam ko yàlla sàkkoon xam yàlla moom nga xam ci dara
ni nga def ba jabar jeeg doom yi kontaan ni nga def sa këru bopp bi ba sa jabar ak say doom kontaan ci yow sa sëriñ kontaan sa sëriñ bi nga yaakaar kontaan sa gouvernement sa kontaan gouvernement kontaan sa chef de bureau sa chef kontaan de bureau kontaan sa sa xarit kontaan xarit kontaan teewoon nga sédd ci yàlla yàlla toll seen ci yàlla moom mi leen boole bind waaye ñooñu seen bés ngay jëfanteeg ñoom waaye ñooñu seen bés nga jëfante ak ñoom yàlla ne maa moom bés yàlla yëpp ne bés yëpp waaye baax benn laa ci gën a téye waaye benn laa ci gën a yi téye nga xam ne kenn mënuma rëcc bi nga xam ne kenn mënu maa rek kenn du ñooyu sama taax mi ne taax mi dafa miir bi kenn du ko tëb ci kaw kenn du ko buruxlu kenn mënu koo jaar ci suuf kenn du ko bët kenn du ko bët bunti bi benn bunti bi la benn la ci ma ëpp ñëpp ci ma ëpp ñëpp doole ku dal ci man ku daal ci man yaay dellu yaay dellu gannaaw ci maa toog ci bunt kenn du jaar ci jaaroo fi man kooku mën na bàyyi xel de
ngeen defante noonu wi yërëmante ci seen bopp ngeen defante lu baax yërëmante ci seen bopp fonk seeni sëriñ te topp leen fonk seeni sëriñ te topp leen te góorgóorlu ci seen diggante ak seen borom te ngeen góorgóorlu seen diggante ak seen borom sakku seen ngërëm ngeen sakku si ngërëmam yonent bi yàlla nee na ko nee yonent bi yàlla nee na ko yaa di Muhammad maa la yónni yaa di Muhammad maa la yónni waaye maa ngi lay yëgal leen waaye maa ngi lay yëgal leen condition ngi di boo xam ne mais condition ngi nii boo xam ne bii soo ko defulee soo ko defulee daa dajeeg man di nga dajeeg man lépp loo defoon ci lu baax nga defe ne ma nga fa lépp loo defoon ci lu baax nga xam ne man fa di la nekk fekk lépp ma ba fekk lépp mag soo lëgee soo lëgee nga bokk ci nga jibeel bokk ci ñuy pet
la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin balillahi faabud jaamul yàlla li am daal na nga ma jaamu rek te sax ci dat te sax ci dàq xatta ataaka alyaqin mais nga nga ci wow na la nag ba dee dik nga dajeeg man nga dajeeg man ëllëg
yaa ayuha alladina amanu sbiru wa saabiru muñ leen te ngeen muñalante yàlla nee na yéen jullit ñi na ngeen muñ te ngeen muñalati te ngeen ragal ma ndax soo lëgee ngeen texe te ngeen ragal ma rek yéen ñëpp ndax ëllëg ngeen tax yal nañ ci yàlla yàlla na yàlla boole ci ko ragal irkau wasjudu waabudu rabbakum wa faalu alxayra laallakum tuflixun rukoo leen nen nit ñi mais na ngeen di ko ànd ak nit ñi Na ngeen jóg sujjóot ànd julli.
ak nit ñi na ngeen ma na ngeen ma jaamu na ngeen ma jaamu def leen lu baax def leen lu baax soo lëgee soo lëgee ngeen am sama ngeen ngërëm am sama ma ngërëm dugal leen ma dugal leen àjjana yal nañ ci yàlla yàlla na yàlla dimbali dimbali leen gannaaw bu loolu wéy gannaaw loolu wee
nañu wattandiku yi nga xam ne mooy xew di dox ci réew mi nanu wattandiku yiy xew di dox ci réew mi fab sëriñ si fab sëriñ si def leen i arme def leen i arme di leen di xeexal leen di xeexalante
fab tariqa yi fab tarixa yi def ko arme def ko di arme ko tojante di ko tojal say bopp jaaduwul jaaduwul jaaduwul jaaduwul tariqan ci gannaaw mais kat tarixa ca gannaaw la ndigal yàlla ngi ci kanamu ndigal tariqa yàlla ci kanam li jàng yàlla bëgg ku ko deful li yàlla bëgg koo deful yoonam nekkul yoonu mu ci yow tariqa yaa ko jàppal yaa sax jàpp tarixa sa waaye bopp.
yàlla sant waaye yàlla sant yàlla dafa ne na nga julli yàlla dañu na nga julli na nga woor na nga woor na nga ma na nga ma ragal ragal defal lu defal lu baax baax demal makka demal makka dëgëm wér nga dëgëm wér nga am paas am paas mën a dem mën a dem mën a dellu mën a dellu soo amulee su amulee yàlla ne teguma la yoonu ma teguma la ko
sëriñ si lii rek la nee na sëriñ si lii rek la astafir tariqa yi lii rek tarixa yi lii rek la astafirullah astaghfirullah la ilaha la illallah ilaha illa allah allahumma allahumma salli la ilaha illallah ca Pologne nee la ilaha illa allah ca réewu ñax ko ne la ilaha illallah ca Daggabari nee la ilaha illa allah ca dëggamay la ilaha illallah ca Piterki la ilaha illa allah ca Pire la ilaha illallah ca Debba Joola la ilaha illa allah ca Debba Joola la ilaha illallah ca Déglamdu la ilaha illa allah ca Déglam la ilaha illallah te teenu janjooli la ilaha illa allah ca Tër Janjooli ak bi ci daara ak diine daara ak ba ca makka ak ba ca Màkka ak ba ak ba ca ca rasulullah Rasulaay ñoo yem ñoo yem benn la ilaha illa allah rek la ñuy tuddoo wuute waaye benn rek la moom
la ilaha illallah jëmul ci rasulullah nee la ilaha illa allah jëmu ci Rasulullaay waxuñu ne la ilaha il- la ilaha illa muhammadur rasulullah waxuñu ne la ilaha illa Muhammad waxuñu ko la ilaha illa allah la ñu wax waxuñu ne la ilaha illa musa wala isa waxuñu ne la ilaha illa allah illa Muusa wala yonent Yàlla Isa la ilaha la ilaha illa illa almuridiyina wala illa tijaniyina wala kenn kenn waxul qadiriyina laa ilaha illa allah bu jëm ci murid yi mbaa tijaan yi mbaa xaadir yi laa la ilaha illa allah ilaha illa illa allah allah rek la ñu wax wahdahu la sharika lahu moom rek rek fi rek amul kenn ku ko ku ko bokkaale ana kon lu tax ñu di ci xel ana ko ne laa tan joxante ñaata fatiha am.
Faatiha bii ñuy jàng ñaata la.
est-ce que Touba dafa jago fatiha.
dafa am Touba ji Faatiha yi Touba rek la dëkk.
Madina ca Rasulullah wala Faatiha yi dëkk Madina ca Rasulullah.
ca Kaaba ga ca Haram ba wala jago ca Màkka allah bisimilah fii dëkk.
déedéet amul la fatiha ja ñuy jàng ca Allemagne.
Faatiha ja ñuy jàng ca Allemagne.
moom la Rasulullah daan jàng.
moom la Rasulullah daan jàng.
sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam.
bi mu fi jógee xulafa yi di ko bi ñu jàng.
jógee xulafa yi di ko jàng.
muy dawaat ba ci Touba.
muy dawaat ba Touba.
dem ba Nimsaat.
dem ba Nimsaat.
dem ba wër adduna.
dem ba wër adduna.
benn fatiha benn Faatiha rek la.
beneen fatiha am.
beneen Faatiha amul.
ñaata xibla am.
penku ñaata la am.
dëgg benn la rek xibla la maso masoon na nekk sax ñaar.
mais xib penku sax mos a nekk ñaar xibla.
waaye ki sàkk xibla yi sàkk ñi mu ñi mu sant ñu jublu ca.
waaye ki sàkk xibla yi sàkk ñu mu sant ñu jublu ca.
dafa ne hey dañu ee ñëpp na teg ñett ñi teg mu ne walbatiku leen mu ne wëlbatiku leen jublu leen yéen lépp jublu leen mag fa ay nama tuwallu wuju fa ay nama ah maanaam kaaba gi daal na ci ñëpp mu ne jublu rek na ngeen wëlbati seen i kanam yéen yëpp bàyyi fi ngeen jublu woon te jublu mag bàyyi leen te bàyyi leen fépp soo demee kay Madina di ziyaara ne boo demee Madina ziara dana lay yóbbu ci masjidul qiblatayn daa ngi yóbbu ci place bi ñu wax masjidul xibla tey waaye loolu koy amoon waaye loolu amoon na waaye yàlla nee na waaye yàlla nee na fa walli wajhaka shatra al masjid al haram waaye suma kuntu fa wallu wujuhakum shatra wal doot yooyu seen kanam yow Mouhamad ak ñeneen yaakaar topp ñëpp jublu Makka léegi di dëkk muy seen xibla allahu akbar ñaata la ne Allahu akbar ñaata la benn rek la benn rek la li nga wax ci penc mi bi nga wax ci penc mi di ma wax fii ak bi mu wax fii di baara wax ci néeg baar wax ci néeg bi Aliou wax ko ci Aliou néeg wax ko ci néeg bële Alaaji Kabara wax ko Alaaji fële Kamara wax ko fële keneen wax ko keneen fële.
wax ko fële benn rek benn rek la asalaamaaleykum ñaata la asalaamaaleykum benn rek la ñaata tusbaara tisbaar ñaata la benn man nga wax ne bés yi bari na waaye tusbaar kay mais man wax ñeent ne rek bés bari waaye moom waxtu tisbaar moom benn rek la la doo dégg ñu ne bésub tey day juróomi rakk la ñuy def doo tusbaar dégg ñun mukk bés bu rakk lay tey dañuy julli juróomi rakk tisbaar timis timis si tey ñeenti rakk timis daal tey ñeenti rakk lañ koy julli ju démb ñaar juddee bu ñaar barki démb ñaar bërki dee bu ñett déedéet amul ca yonent ba te léegi yoon su ba léegi timis ñett rek timis ñett rek tusbaar ñeent tisbaar ñeent takkusaan ñeent takkusaan ñeent gee ñeent gee ñeent suba ñaar suba ñaar ak ñaar rakk ak ñaar rakkay fajar mu jeex mu jeex
kon ana lu waral wuuteeg mais kon a wuute gi juuyoo gii ñu def lu ko waral suñu noonu ñu bëgg a teqale rek li am daal mooy sulum doon seetaan yi moo du bëgg a te teqale muy iblis te mooy iblis ndegam am nga noon boo bëgg a xeexal ndegam yow am nga benn noonu boo noonu bëgg a xeex ak moom tojal sa bakkanu bopp mais sa bakkanu bopp bi ci bi ci yow mooy saf noonu dëgg-dëgg xeexal ak moom xeexal ak iblis xeexal ak iblis xeexal ak sa bànneex xeexal ak sa bànneex ñii la yàlla wax ñii la yàlla wax yàlla ne yàlla nee na inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa yàlla nee na seytaane seenu noonu yéen jullit ñi jàpp leen fi yéen ñëpp mu di seenu noonu yàlla nee nee na na yàlla nee na laa tattabici alhawa fa yudillaka an sabilillah bu leen topp seen bànneexi bakkan yii wax ci def dana la sànq nga aw yoon nga xam ne yàlla waxuloo nga jaar yàlla ne nee na yàlla nee na inna nafsa la amaratun bi sa bakkanu bopp bii mooy sab noonu du la digal mukk lu baax ci yow yonent bi ne nee na yàlla si bi nee na aada aduwika nafsuka allati bayna nee sa jambayka noon dëgg dëgg dëgg bi gën a teg seen Mooy sa bakkan de.
mooy sa bakkanu bopp bii la bala ngaa toji bakka bopp bala kenn ngaa tëj bopp kenn dalal ci sa dama sa bopp bopp yow ak iblis ak iblis ak i doomam ak i doomam ak sa bànneex ak sa bànneex lu la dal lu la dal bala ngaa xeex ak bala ngaa kenn xeex kenn vérifié la vérifier xeex ak ñoom xeex ak ñoom ba not leen ba not leen.
ndegam des na beneen dagam des na benn nga door a génn nga kër.
door a jëli ci biti ñooñu ko daje ñoom boo ci jógee door a dawati fenn ñoom rek fay noonu
yal nañu yàlla dimbale.
nee na yàlla na yàlla dimbali xaadir dina bëgg mbokkum muritam murit dina bëgg mbokkum xaadiram.
ne xaajir na bëgg mbokkum muritam murit bi na bëgg mbokkum xaajiram tijaan bi na bëgg mbokkum muritam murit dina bëgg mbokkum tijaan.
jirgaay bi na bëgg mbokkum muritam murit bi na bëgg mbokkum tiyaanam te ñun ñëpp ñu bokk xam ne waxuma la tariqa waxuma la waxuma la tariqa jëlale naa lislam jëlale naa tariqa waaye l'islam sax ak bokk ko jiitu.
ne te kat nu xam ni nag jël na su tarix waaye islam bii nu nekk Ak ak bokk ko bokk ko jiitu ak bu ak bokk ko jiitu nag l'islam dafa war a defar.
ne lislam te lislam dafa war a defar كل مسألة حدثت في الإسلام فأوجبت العداوة والبغضاء وال والبغضاء والشقاق بين المسلمين علمنا أنها ليست من مسائل الإسلام لأن الإسلام تؤلف ولا تفرق ne bépp masala boo gis bii mu sos ci l'islam neen di waral ak noonu ak teqali ko ak bañe xamal ni moomee masal du masalam l'islam l'islam day boole jullit waaye du leen teq
lépp luy waral loolu lépp luy waral loolu فخارج عن الدين الإسلامي lépp lu wax yii lu génn ci diine lislaam la dafa gën a waaye du ci lislaam bi yàlla ne ragal leen ma te defar seen i diggante yàlla mu day rafet.
ragal leen te seen diggante moom rafet yàlla ne bu leen def tiraay ma def échec yàlla ne bu leen def tiraillement wuute ngeen def échec bu leen xëccoo bu leen xëccoo su ngeen defee échec su ngeen defee échec xëccoo xëccoo li ngeen amee woon ci bien amee woon ci bien Da ak ngeen ko yiw perdal.
da ngeen ko perdal yàlla ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yàlla ne yéen ñëpp da ngeen àndandoo nekk benn jub mooy ci bu mu yàlla gi te bu leen teqali ko samay kaddu ñàkk laa neex mais waaye samay kàddu nekk laa neex
bu mu la jëmee ci ma man Abdou ma ne kii Alburi Njaay la tudd mu ni bu mu la jël mu gërim kii taxaw kat ab ab alburi la tudd neexuma de rek neexuma la rek nga ne waaye du dëgg kii waay ko tudd alburi Demba la tudd jàmba la tudd kooku koy waaye baax xam nga ci kay alburi la tudd kii taxaw alburi la tudd te yooyu day am ci te biir yooyu day am ci nit ñi te yooyu yëpp seytaane yi ko te bëgg a yëpp seytaane pour teqale ñu.
teqale ñu.
nañu bañ nanu bañ
nañu bañ nanu jéem a bañ taalibi murid bi na nekk ci li ko sëriñam sant taalibe bi murid bi na nekk li ko sëriñam sant ta tijaan bi na ko def tijaan bi na ko def sëriñ yi sant ñu dara lu dul ñu jaamu yàlla te wéetal sëriñ ko si day ñoom santaane wu loolu du jaamu yàlla te wéetal toppaayu ndigalam bàyyi ay tereem ndigal li yàlla bàyyi tere su loolu amee su loolu amee jàmm am jàmm am ñu jubóo ñu jubóo am li ñu bëgg am ci li ñu bëgg ci yàlla suñu ko mënul suñu ko deful yàlla lan yàlla lank du def liggéey dara.
coow rek kay bàyyi waaye dara du sot
yonent bi nee na nee na yonent bi nee na feeg àndandoo wu leen boole seen bopp nekk benn feeg àndandoo leen boole seen bopp nekk benn ni ko yàlla digle bëgge ko ni ni ko yàlla diglee bëgg ko ni ngeen roy rasulullah seen roy ras- rasulullah dégg ndigal yàlla dégg ndigal yàlla yi topp ko topp déglu ay tereem déglu ay tere bàyyi ko bàyyi seen kemtalaay seen kattan kemteel kattan ne mënuñu ko ñu mënul ko waaye kemtalaay kattan waaye ñu def ko kemteel kattan yéen wolof yéen a wax ne surga ba nga xam ne su déggee baatu kilifa ka dem ca tool ba donte le du fa def dara mooy ki nga xam ne balaa yeewu dix heures jot ne ne surga bi nga xam ne bii bu déggee baatu kilifa ga xëy tool donte le bu dee tool da caa def dara it waaye da nga xëy tool ngir baatu kilifa gi moo gën a ci tëdd ndax balaa ñëw fekk li ñogale bi fi nekkoon jeex waxuma laa nag fan nga boole kenn xëy ba noppi mu dikk fekk ñu ngay woon ci tool bi jeex daje ñu dëj añ daje ñu dëj te doo ko ne mën ne te bàyyi doo ko ni ba doo ko mën ne bàyyi doo ko mën a bàyyi
waaw surga de moom dafay sa borom su ko defee nag ne bu ko defee nag yonent bi ne leen yonent bi ne leen tànk loolu amul fekk loolu amul su ngeen yeboo dajale ñi ngeen yaakaar bu ngeen ñëpp yeboo mbooleem sëriñ si ngeen yaakaar ñëpp ngeen dajale leen ngeen jàpp ba tooy xel yéen ñëpp ngeen jàppatoo xëpp ñu toog ci seen kanam sëriñ si yëpp nekk seen kanam tàllal seen i tàllal seen loxo yàlla allahuma jàpp ca kaw jàpp allahuma ci suuf jàpp ci ko jàpp ca suuf amin jën mel ne tulleeg ñu màlle jëppe ñëpp jàpp ci amin mel ni tuleeg mal sama borom ne du ma leen jox yàlla ne dara du tax ma jox leen dara ndax defu leen li ma ndax defu leen li ma bëgg te ñu ngeen jiital maa leen moom moomuñu ma
ñu ngi ñaanal suñu doom yi le mais mi ngi ñaanal doomam yi de
wax dëgg yàlla mais daal wax dëgg yàlla nit manul nekk manul manul manul lu dul di sa mbokk nit mënul dul sa mbokk ci wàll yëpp ci wàll yëpp
di sa kilif di sa kilif di sa waju di sa waju nga bëgg ko nga bëgg ko jox ko cër yi mu am ci yow jox yëpp ko cër yi mu am ci yow yëpp booleeg sa cëru bopp boole sa cëru bopp jox jox ko ba leen di mën a yem sama bàyyi nee na lu nit saña di saña di gërëm saña gërëm ki surga ba nga xam ne su déggee dem leen tool dem Seydi Hadji Malick nee na lu nit sañi dee sañi gërëm njabootam sañi gërëm suuf bi ci kër gi bu nee xëy lee tool mu dem tool ca teel faw lu nit sañi sañi gërëm gërëm kooku diiru bi nga xamee ne daana fi fekk sama mag ji nekkoon fi diiru bi fi daañoo di fekk maam yi ne fii di siig di fi fekk Alioune di ñoom fekk Aliou ñoom ak ñoom Mbay ak ñoom Mbay ak ñoom Baara ak Ñas, Baara.
ak ñoom ak Maxtaar Muxtaar cër booba ñu ma joxoon ak bët yañ ma xool cër ba ñu ko joxoon ak ba ñu ko xooloon moo xam ci Jolof moo xam ci jaraw la su dee ci mbedd su bi dee ci mbedd bi boutique buñ ma fekk buti buñ ko fekk ci oto ci oto ci saxaar ci saxaar ba léegi ba léegi moom la ñuy dara manqué wu ci moom lañ koy jox kon nag yéen ñi nga xam ne maag yéen a maag ñoom a leen bokk kon nag yéen ñi nga xam ne moom ak yéen a leen bokk dañu jàppe ma nii dañuy jàpp ko nii fonke ma nii fonk ko nii bëgge ma nii bëgg ko nii te man duma te dara moom nee na du dara jox ma ba jox ma lu ma jox moom ko ba jox ko lu moomul danaa war a am ngoru dina war a am gor ak diine ak diine gërëm gërëm leen leen ci pàkk bi ñu bokk pàkk bi ñu bokk te muy yàlla te mu yàlla yàlla rek yàlla rek tax na jërëjëf maa ngi leen di sant mi ngi leen di sant di leen di ñaanal leen yàlla ñaanal yàlla yal na bu seen dara diriku ci seen seen lépp yal na jëf kaw yéen it yal na leen ko yàlla defal yal na ko defal jullit yëpp yal na leen yàlla yëkkati jëme kaw suturaal leen may leen wér defal leen li ñu bëgg te seen mag yàgg ci seen kanam seen mag yàgg ci seen kanam mu dale ca Papa Ndiaye mu dale ca Papa Ndiaye ak ak ak Aliou ak Aliou ak famille bi ak famille bi góor ak jigéen góor ak jigéen ñu toppante ñu toppante jàppante jàppante xol yi nekk xol yi benn nekk benn teranga bi teranga bi jëm kanam jëm kanam yal na leen ko yal na leen ko yàlla defal.
yéen Jolof yi yéen Jolof yi ak rek Fuuta ak Fuuta Waalo Waalo fépp fépp adduna ndar képp adduna ndar képp ñaan gil ñaan gi yal na diriku ci yal na diriku ci seen kanam.
xale yi sëyul yal nañu sëy xale yi sëy
yal nañu sëy xale yi sëy yal na leen yàlla may ay jëkkër ñu sëy te ay doom bàyyi ko ci yoo xam ne danañu taxawu diine ji ay taxawaat doom bàyyi ko ci taxawu diine ji ak adduna di sàmm seen ngor ak seen diine di sàmm seen ngor ak seen diine ñi sëy yal nañu jubóog seen ñi sëy yal jëkkër nañ ci wax seen i jëkkër xale yi examen yal nañu at xale yi extement yàlla nañu at mi ñaam brevet te war a liggéey yal na leen ko yàlla ñaar jox bëri liggéey yàlla nañ ci yàlla jox ñi jotaam liggéey yal nañ ñi ca sax jotaam liggéey yàlla nañ ca sax commerce bi yal na dox commerce bi yàlla na dox mbay mi yal na mbay dox mi yàlla na barkeel njaay mi yal na jaay mi dox yàlla na dox njura mi yal na loolu dox mi yàlla na dox barke yal naan barke jur yàlla gi na am ci suuf si ci jur gi jur gi ak ndox mi ak ndox mi ak garab yi ak garab yi ak njaboot ak njaboot ak diine ak diine ji xol yëpp xol yëpp nekk nekk benn dënn yi dënn yi yaa yaa gannaaw yi set gannaaw yi set ñu mën a bootal ñu mën a bootal bootu ci gannaaw yàlla bootu ci gannaaw gannaaw yàlla rasulullah gannaaw rasulullah gannaaw sëriñ suñu gannaaw sëriñ suñuy sëriñ suñuy sëriñ bootu bootu ci ci rasulullah rasulullah yal na yàlla muusal kër yeneen ci bi ak seen njaboot yàlla yàlla bu seen comme loolu ci seen njaboot ak suñu mboolee mi sëriñ ak suñu mbooleem sëriñ seen njaboot ci gàtt ci fan gàtt fan deewu teew mbetteel mbetteel këris kardiak kër jaag fexem noor fexem noon fexem jabar fexem jabar ak fexem lépp luy rañaan ak guddi ba lépp luy rañaan bëccëg guddi mbaa bëccëg loo xam ne lora nga ca loo xam ne loola nga ca yal nañ ko yàlla fanqal yal na ko yàlla fanqal.
yal na yàlla dimbale chauffeur yi yàlla yàlla dimbali chauffeur yi yal na bu ñu dal ci yàlla dara bu ñu dal ci dara yal na bu kenn dal yàlla bu dal ci seen ci kaw seen kaw.
yal na bu ñu këpp yàlla bu ñu këpp yal na bu ñu sawir yàlla bu ñu sawiri yal na ju bu ñu batti yàlla bu ñu fàttali yal na bu ñu ah baar de pukku kolba bu dog yal na leen ci yàlla musal daanaka ko am nga leen ci yàlla musal ñañu yëpp yal na ñu ñu mucc yëpp ñëpp yàlla ñu mucc oto yi yal na ñu mucc parce que yàlla nañu mucc ñi koy conduire yal na ñu mucc yàlla nañu mucc ñi leen romb yal na ñu mucc romb yàlla nañu mucc ñi ñuy romb yal na ñi ñu romb mucc yàlla nañu mucc ñi ñuy rombante yal na ñu mucc yàlla nañu mucc fa ñu bàyyi ko yal na ñu bàyyi mucc ko yàlla nañu mucc fu ñu jaar ñu mucc jaar mucc fa ñu jëm fekk fa mucc fekk fa mucc ànd ak ànd ak mucc.
mucc bàyyi ko fa mucc bàyyi ko mucc bàyyi fa mucc bàyyi ko mucc romb mucc mucc romb mucc àgg mucc àgg ci mucc fekk fa mucc fekk fa mucc te mu yàgg te mu yàgg yal na ko yàlla yal na ko yàlla te boole ci wér deboole ci wér ak fan ak fan wu gudd ak mujj ak mujj ko rafet ak jubóog ak yàlla jubóog yàlla ak xam yi ci suñu ak lool xarit suñu loos bala ñoo dem bala noo dem yal na set yal na set wecc yi ci des li ci des say àq jàmm say àq jàmm yal nañu wuut yal na nu wuutu ci fayal ñu ko fayal ko balaa bésu fay ba balaa ñëw bisu fay baa dikk ba lépp ba leer lépp leer yal na saafara jàngoro yëpp yal na saafa jàngoro yëpp yal na yàlla buddi jàngoro yëpp yal na yàlla def jàngoro cere bi yëpp yi wér ak yi yi wér dul ak yi dul wér mu musal ñu ba mu te musal kenn ku nekk dellu ci sa kenn sago koy dellu ci sa sago te am kattan te am kattan koo jaamoo koo yàlla jaamoo yàlla joo joo mën a dundale sa yoo mën a njaboot dundal sa njaboot yal na ko yàlla yàlla ko yàlla ci yëpp di jaahi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nawet bi nawet bi yal na yàlla ommat dund gi yal na yàlla woo mat dundut ommat kattan gi ah amat kattan ommat jëmm yi amat jëmm yi ommat wér gi amat wér ba ñu dajeeg nawet bi bépp nu dajeeg nawet di ñu seen yàlla bokk ñu téyeeg moom yàlla bokk téye ak moom ak li ñu def ci suuf ak lu def ci suuf si mboolem xeeti jëmm mboolem xeeti jiw yi yàlla sàmmal ñu ko yàlla sàmmal nu ko sàmm ñu sàmm nu di ñu dëri di nu diri ak jiwu yooyu ak jiw yooyu la ak nawet ak nawet bi ak jëmm yi ak jëmm yi ak ruu yi ak ruu yi ak njaboot ak njaboot ak lépp lu ak ñu jox lépp lu mu nu jox ñu ànd ak nawet nu ànd ak nawet bi ca nañ ko bëgg te nañ ko bëgg ba teer ba teeri ci ci alhamdulilahi alhamdulillahi rabbil alamin lépp lépp lu ñu perte lu lool ñu perloo ci ci paase nawet bi nawet passé bi paase yal nañu yàlla jox lu yàlla ko na yàlla jox lu ko ëpp ci nawet ci nawet bi.
waaye nag waaye nag téye leen gëm nañ ko booy téye lammiñ yi téye leen gëm nañ téye gëm yi téye leen nañ gëm téye téye gëm yi bu na gerte gi naat rek ñu bu nawet bi commencé gerte gi naat rek ñu daje ci jàkka ñu yi daje ci jàkka yi soow dem soow dem nañu boole nañuy ñaan ci boole di ñaan yàlla nañuy ñaan nañuy ñaan nañuy ñaan nañuy ñaan yàlla ne yàlla nee na su ngeen ma dul ñaan du ngeen ma dul ñaan du ngeen ma jéggalu du ngeen ma jéggalu gannaaw bu ngeen moyee gannaaw bu ngeen moyee te mën naa fi andi ay nit kon dana mën naa fee di nit ñu di ma tooñ ñu di ma tooñ di jéggalu di jéggalu ma di ma di leen baal leen baal ñuy laaj ñuy laaj ma ma di di leen leen man man de jeexlu ma dara.
jeexlu ma dara yéen ñi ma bind yéen ñoo ñëpp bind ñëpp jiin ak jinne ci nit ak jinne su ngeen daje woon ci benn pat bu ngeen daje woon ci benn pàcc kenn ku nekk ne allahuma kenn ku ne dama ñaan ni allahu ay kër la bëgg.
ay kër la bëgg.
ay jabar la ay jabar la bëgg.
ceeb la bëgg ceeb la bëgg.
ay tool la ay tool la tool la nangam la bëgg.
nangam la bëgg.
bay yi nga xam ne yàlla daf ko dajale ñu di xeewal mu ne jaam yi laaj leen ko.
bay yi yàlla dajale di xeewal yëpp ni jaam yi laaj leen ma ko.
ba centraliser ko lépp.
ba dajale lépp.
ku ci ne ma jox la ba jox la lu ëpp.
ku ci ne ma jox la ba jox la lu ëpp la nga ma laaj.
loola ma leen ca jox loola ma leen ca jox.
ak li ci des.
ak li des ci man.
mi ngi mel ne puso.
mi ngi mel ne puso.
bu wadd ci digg bu wadd ci digg dex.
nga yëkkati nga yëkkati la ca tooy.
la ca tooy mooy li ma joxe mooy li ma joxe lépp.
la ca des la ca des ga.
mooy mooy li li ma des.
des na ko.
moo barale moo barale moo barale nee na itam yéen ñëpp su ngeen dajale woon.
yàlla nee na ñoom ñëpp nga dajale woon.
am caay caay gu day ne gu firaw am caay caay gu day di firaw.
ci lank bañ maa te toog làkk bañ maa toog.
du wàññi ci sama nguur du wàññi sama nguur gi dara.
su fekkoon su fekkoon.
yéen ñëpp yéen la ñëpp ngeen daje da ngeen a daje.
amee xolu aarif billahi ana xolu benn aarif billahi.
ba mel ni jibril ba mel ni jibril.
ci ragal ci ragal gi ma ragal.
ak topp gi ma ak topp topp gi ma topp.
ak xam gi ma ak xam xam gi ma xam.
ngeen àndandoo ngeen àndandoo.
di ma toppee di ma noonu toppee noonu.
déggale ma noonu déggale ma noonu.
bàyyi samay bàyyi tere samay tere.
du dolli ci du sama lay sama nguur nguur gi dara.
dara léegi nag léegi nag.
ñu ngi bëgg a mu gon ngi bëgg a gon.
incha bu leen ñu fàtte ci bu leen ko ñaan fàtte ci ñaan.
dañu incha allahu taala incha allah taala.
dañu bëgg a dem boobu Linguère.
continuer ba Linguère.
suñu wàññi ko suñu wàññi ko.
fii la ñuy jaar fi la ñuy jaar.
ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi bu leen di baax ziyaara.
bu baax a baax bu baax a baax.
ku ma ci ñëwul sa kërit na nga xam ne wéradee tax ku mu ñëwul si kër xamal ni wér dee tax.
wala ñàkk jot wala ñàkk jot.
waaye ubbil naa leen sama xol.
waaye ubbil na leen xolam.
muy seen dëkk muy seen nekk.
incha allah incha allah.
waxtaan wi ñu ngi ko waxtaanee si daara si talaata